sur King FM. 9 h dans nos studios, bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce flash d'information à Guimarus Sagna et compagnie attendus au parquet ce mardi. Hier, ils ont fait l'objet d'un retour de parquet. Guimarus Sagna et huit autres personnes ont été arrêtées vendredi dernier devant le palais présidentiel lors d'une manifestation interdite contre la hausse du prix de l'électricité. Le président de la République très en colère contre les épinglés du rapport 2017 de l'ARMP. Selon le quotidien La Tribune qui donne l'information, Macky Sall a indiqué à certains de ses proches que sur cette affaire, nul ne sera épargné et que tout sera tiré au clair. Le journal ajoute que le président compte ramener son slogan euh, Tolérance zéro pour euh, cette le procès de deux des euh, policiers et un ASP cité dans la mort de Sering Falouka va démarrer ce mardi au tribunal de grande instance de Djourbel. Le jeune berger avait perdu la vie en détention en mai dernier à la maison d'arrêt et de correction de Djourbel. Il a été arrêté pour euh, détention de chanvre indien. Les négociations entre les travailleurs de la SDE et le ministre de l'eau et de l'assainissement piétinent. Les deux parties n'ont pas pu trouver de consensus à l'issue de leur rencontre d'hier. Le ministre Serine Beicham dit tout de même attendre des propositions de la SONES et de l'ONAS, partie prenante des euh, discussions. Une note de sport avec ce ballon d'or France Football 2019. Sadio Mané n'est pas sur le podium, la star sénégalaise de Liverpool termine quatrième. Le ballon d'or est remporté par Lionel Messi. La deuxième place est occupée par Virgil van Dijk, suivi de Ronaldo qui arrive en troisième place. Une note de musique pour terminer. Nous vous proposons Mao Sidibé dans Charoy 44, un titre qui revient euh, sur ce douloureux événement du 1er décembre 1944 avec la mort de plusieurs tirailleurs sénégalais. caaroy ñu ko fàtte ñu ko plané ñun ñi di doomu tirailleur sénégalais ñun ñoo wara def ba kenn du ko fàtte la xewoon fële ca ka de caaroy ñu ko fàtte ñu ko plané ñun ñi di doomu tirailleur sénégalais ñun ñoo wara def ba kenn du ko fàtte. Et c'est sur ces notes de musique que nous mettons en terme à ce flash d'information version française la partie Wolof c'est tout de suite. yéen de ngi King FM 99.4 jaa ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak ñun King FM Dakar 99.4 xibaar yi ci ak tënk ñu tàmbalee ko ak mbiru Guy Marius Sagna ak ñi mu euh, àndal ñoom ginnaaw bi ñu leen tegee loxo àjjuma bi ñu euh, génn ci ab manifester bu ñu doon amal boo xamante ni nangu ko woon ñoom ñi ñu ngi leen di xaaraat ca euh, parquet du tribunal bu Ndakaaru ginnaaw bi nga xamee ni retour de parquet la ñu amoon ni ki démb président de la république njiitu réew mi moom Macky Sall maire bu futu jëmale ci ñi nga xamante la rapport 2017 bu RMP daldi di euh, teg loxo mu wax buñu sukkandiko ci le quotidien mi joxe xibar gi mom président Macky Sall maire ba futu la def mom sax ci ay wax ni ñi nga xamante ne ñoom la euh, ci mbir mi le euh, kenn du len yeeram fi mu tollu ni mu melni sax tolérance zéro la wat ci le mbir procès wu ñaari policier ak ben ASP bo xamantene dañu tout donne ci ko Serigne Fallou euh, Ka dina tàmbali ni ki tribunal bu grande instance bu euh, djourbel mom mi nga xamanteni Sam sam sàmmkat Danonko, ou ñu euh, danon ko wala ñu tëjoon ko ci kasso bu djourbel ou wéru mai mom mille sax ñu fatali ni yoru Yamba, lañu ko jàppe woon ñu wax ci négociation yu dox ci diggante liggéeykatu SDE ak seenuk djourine mu melni dal dara tukki wu ci ñom ñi muju ñoo gu démb gi naam jawriñ gi ñu dénk wàll wi di Serigne Mbaye Thiam wax ni moom dina xaar proposition yu SONES ak ndax nag ñoom itamit ci waxtaan wi la ñu bokk waxtaanee wàllu tàggat yaram ak Ballon d'Or bile Ballon d'Or France Football 2019 Sadio Mané bokkul ci euh, podium bi euh, moom staru Sénégal bi nekk foofule ca Liverpool ñeenteeli place bi la jël ci football yi ci footballkat yi nekk ci àdduna wërngal këpp moom mi nga xamante ni moom moo di Ballon d'Or bi Lionel Messi Barcelone mon ko daal di euh, jël place bi Van Dijk Cristiano Ronaldo Djel 3 euh, troisième place ci bile jongante ñu jeexalee ko walu musique tay nak ñu len di euh, dégluwaatal way wile di Charo 44 bu Maawo Sidibé li sax dia po way bo xamanteni day fàttali jamono yu metti yo xamanteni ay tirailleurs sénégalais yu bëri ñakko nañ ci sen bakkan fa la ca camp de Thiaroye waruñu ko fàtte waruñu ko plané ñun ñi di doomu tirailleur sénégalais ñun ñoo war a def ba kenn du ko fàtte la xewoon fa ca camp de Thiaroye waruñu ko fàtte waruñu ko plané ñun ñi di lii fi ah, ah, rédaction FM Dakar di jox ah, dik fi ak waxtu lay Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram, King FM, première radio digitale.